bu dul jeex boo jëndee mbuusu cent franc mu tëj la. te amul conséquence. Clédor Sène dafa mel ni moo ngi ci ligne bi ak ñun Clédor ñu ngi lay euh, nuyu. ñu am mbégte àndaat ak yow ci jotaay bi les trente minutes de Clédor Sène euh, ci Sénégal matin Clédor euh, tey lan nga indi. waaw xanaa actualité rek. Hmm. dafa mel ni évolution parce que ñëpp gis nañu ni euh, processus bi c'est vrai bu ñu avancé euh, commencé nañu déposer candidature yi ak vingt neuf personnes mm-hmm. déposer seen candidature au conseil constitutionnel mais ci trente neuf personnes yooyu mm-hmm. bokk na ci Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko nga xam ne ñoom ñooy def euh, l'attraction donc mais également ci temps bokk na ci Abdallah Dione parce que moom laa gisagum ci camp présidentiel mu déposé en dehors de Amadou Ba hmm. parce que candidature Aly euh, dégguma ko ci la ak Mame Boye Diao hmm. wala bu keneen bu mu lance présidentiel am na beaucoup de personnalités indépendantes ak ñoo xam ni xamuñu ñoo xam ni déposé nañu seen candidature donc ñu ngi jëm ci benn segg boo xam ni xam naa ni bu conseil constitutionnel pare examiner candidature mm-hmm. sur quarante yi ñu déposé il se peut que même la moitié bañ jàll mm. kon au final waaw waaw c'est tout comme souvent dañ ciy recalé ñu bëri. Mm-hmm. Euh, may fàttali ni euh, deux mille dix vingt sept euh, candidats yu déposé woon au conseil constitutionnel cinq lañ ciy retenu donc tey jii bu ñu déposé quarante ci parrainage citoyen yoo xam ne parti yu yi ñoo ko jeexal mm-hmm. ba ñeneen ak parti nga xam jaar nañ ci nguur ñu mm. mën a am pexe am facilement parrainage citoyen mm. donc ñooñu bu ñu jëlee seen wàll ñu ci pour ñu indi parrainage bi rek dafay moo tax ñu war a xoolaat te silti ci parrainage la mm-hmm. parce que dafay dafay éduquer question euh, démocratique ñi nga xam ne ñoo war a sàmm war nañu am une diversité de choix Mm-hmm. de choix programmatique mën a tànn ki ñuy porté seen yaakaar donc euh, loolu je crois que tey mooy dernier dernier dernier délai dernier jour à minuit mm. donc ñu ñi crois que tey bu ñu déposé ba minuit loolu mooy compliqué mu def nag ñu jot a déposé hmm. ñu délibéré bu validé seen candidature hmm. donc foofu la ñuy xaaree parce que man tey am na ay euh, candidature yoo xam ne man maa ngi leen di déglu donc euh, ñaar laay déglu bu Habib ak bu Aly Ngouille Ndiaye parce que ñaar yooyu yëpp daf ba amal solo Hmm. benn bi euh, xam nga pourquoi bi ci def aussi dafa am interprétation dafa am signification boo xam ne euh, bu jotee danañ ci def jàngat. mooy candidature Habib Sy. voilà waaw. mais lan moo tax euh, lan moo tax nga seppi ko ci yeneen candidature yi noonu tudd ko. non seppiwu ma ko. seppiwu hmm. ma ko. parce que tudd ko moom kese mais moom ak. Aly Ngouille Aly Ngouille moom waxoon nga fi li tax voilà léegi mais Habib Sy tey laa la dégg nga wax ci euh, Télé Sénégal yeen bés bu ne danañu am jàngat bés buñ ci àggee xam nga tey le dernier délai mhm. ñu a déposer ko li mhm. amaat incha allah jotaay waxtaan bien sûr waaw mais nañu xaar danañu waxtaane lépp mhm. bu boobaa euh, dañu xam jàngat bi ci def mm. ak solo bi ñuy joxe yenn yenn candidature mm. donc loolu mooy mooy mooy actualité donc toujours euh, le léegi li yokk ci xarnu karaw mm. euh, génn na ci mooy posture yenn ci ay sénateur yu ñoo xam ne vraiment ni réew mi doxee préoccupé na leen au point pour ñu def recommandation pour que président Macky Sall organiser ay élection yu leer te dañu brimer opposition bi kon mm. nag li mu ci gën a neex ñoom dañu demandé ñu libérer tous mm. xam a des mm. mu nekk loo xam ne euh, Sénégal waroon ñu koy teg ci yoon for naa ci wéeru bi sax ñu sénateur yi ñu ngi fii Sénégal te recevoir hmm. donc euh, mbirum Sénégal stabilité Sénégal euh, daf te loolu dafa war a nit ñi pour ñu xam ne lépp li fi xew lépp lu ñuy def ay chancellerie yi ñu euh, maanaam étranger yi ñu ngi tëj bët monde bi vingt villages planétaires dara du ump sous région bi li pays ñu ñu surveiller di intéressé hmm. aussi ñuy surveiller di intéressé wu ci li xew Sénégal léegi nag bu ñu demee ba ñoom dañuy def ay recommandations suñu sàmm démocratie ñu sàmm àq yelleefu doomu aadama c'est-à-dire loolu ça veut dire ñu euh, ngi te du lenn du dul euh, régime bi nga xam ne ñoom ñoo bañ a ak dogalu yoon ñoom ñu ni woon danañu fexe ñu euh, respecté lépp ci yoon dogal kon loolu ñu ngi siy gàncax te ñu ngi ñaan ak yaakaar bu wér ñu dañu am ay élection yu transparente hmm. ñu ngi ñaan aussi ñu détenu politique euh, delloo leen seen àq ak seen yële hmm. leen tout simplement donc euh, fi mu nekk ni euh, seetlu ngeen ni tamit dogal bi tribunal grande instance bi Dakar jëloon ba léegi c'est pas frappé de kenn dugalul pouvoir en cassation kon Ousmane Sonko bu mais agent judiciaire bi am na ba tey pour def ko waaw am mais ba mais defa guñ li ñu constaté ko Ousmane Sonko déposé donc déposé waale na une ordonnance d'un juge non encore frappé de recours ordonnance bu statué montant du travail en dernier ressort en dernier ressort moo ñu déglu loolu yëpp pour dire que euh, conseil constitutionnel dina am am xaar te je crois que cette fois danañu am une surprise agréable parce que seen tootuñu ci Macky Sall dara ba noppi ñoom ñu yëpp mais ñu ngi en fin de carrière mënatuñu am euh, prolongation seen ñu retraité woon leen ñu yokkal leen trois ans la part donc ñooñu euh, war nañu toll ko seen digganteeg yàlla ak seen libre conscience rek mm-hmm. mooy doon seen arbitre te non ay intérêt de carrière wala faire euh, mm. un donc foofu mooy chance Sénégal nga xam ni le droit euh, bu loolu amee nag dafa mel ni déggante bi neexatul noonu Clédor Clédor Sène Clédor dafa am jafe-jafe ci jokko bi ak Clédor Sène ñoo ngi woon ci les minutes de Clédor ci Sénégal matin seen matinal ci télé Sénégal TV euh, Clédor doon jàngat euh, mbiram Ousmane Sonko ak dossier de candidature ba ñu yóbbu ca conseil constitutionnel yóbbaale itam dossier wu Bassirou Diomaye Faye mais bossu Sonko surtout li ci particularité mooy euh, amul fiche de parrainage numéroté comme yeneen candidat yi ni leen ko déjà joxe mais aussi amul attestation de caution a jox mandataire am di Ayib Daffé euh, ginnaaw loola CDC euh, rejeté caution bi euh, donc joxu leen attestation loola yëpp nag lañ dajale boole kook ordonnance su juge bu tribunal d'instance hors classe bu Dakar def ci dossier bi jébbal conseil constitutionnel Clédor doon jàngat naka la juróom-ñaari juge yooya nekk foofa di ay sage war a doxalee ak bi lépp dossier nekk ci fin de carrière ñoom itam. waaw waaw ñu ngi lay dégg léegi ñu ngi woon ci jàngat beeg fi nga ci tolloon. voilà voilà conseil euh, constitutionnel ak dossier Ousmane Sonko réseau bi mooy daw. bien sûr. Mhm. Mhm. ngi woon ci conseil constitutionnel ak dossier bi taxawaay bi ñu ci war a am. ñoom ñi nekk en fin de carrière les sept sages. voilà kon je disais que ñoom. Mhm. fi mu nekk nii seen tootuñu carrière suba. seen tootuñu ku leen fal. parce que pour la plupart ay retraités ñu yokkal trois ans lañu. te ki leen yokkal dem na nekkatul président. donc doon séntootuñu ci moom dara. Mhm. ñoom tam séntootuñu seen carrière dara. kon toll nañu foo xam ne war nañu mën a wax le droit tout simplement te bu ñu waxee le droit tout